hello assalamu alaikum guys carrying my shopping coming from town maa demoon town ndax fa xam ko jënd yére ma yóbbul ko ko sama benn xarit ba pare moom it fay jaay yére ma jëndaale it mooy lii gisoo fii si yére yi may jaay la bokk moom laa sol ni la sama bu rafet I went to post some dress, one dress, not post. I post some baobab. Somebody buy some baobab. I went to post the baobab. And then one of my friend bought a dress. I went to take the dress to her house, but she's selling dresses. So I end up buying one of her dresses. But I collect this video to say, some people, they're like the bus driver. that I just get off from. But you have to know how to maintain your peace. They're walking here, guys. So, see, they're walking here. <laughs> so it's gonna be so noisy. What happened is the boat driver, the boat driver fa xam boos driver bu ma indi fa xam boos ma wàccee te driver ba fa sibbutu mhm. moo tax ma dikk ci vidéo bi la di leen wax ne nit ñi sibbutu moytu leen leen mhm. ñoo raw am yóob te duñ nangoo faju soo leen moytuwut yow doo faju when you are not careful of people who need healing and they're not gonna heal you yourself you will not heal because the bus driver is so miserable and rude. They're walking here, guys. That's why it's so noisy. Wait, let me pass here. taxawlee ma romb fa ñuy liggéey fa yëngatu why I say that is that the bus driver is so miserable and rude and you can even call him racist if you want So when I was going on the bus, just before the bus arrived, one of my customers who met me before and buy stuff that I'm selling saw me and he want to have my number so he can call me to send money to me to my account I can sell him some the stuff that I'm selling this mint that I'm eating this Senegal ginger mint this made in Senegal ginger mint so nice He loved it. He want to buy it. So I was giving him my number. He want to buy the whole packet. So I was giving him my number when the boss was there. And obviously I don't want the boss to go, you know, because then I have to wait for long. So the boss, before I start giving him the number, the boss was closing the door. So I, do, I, I went like this, you know, like touch the door for the boss to um, open the door. And I got in. And then I say to the boss driver, no, I didn't say nothing. I go in and I start opening my zip, my bag, you know, to take the money. And the bus driver said, oh. And then the guy, so the guy was outside. I was telling him the number. When I was going in, I was telling him the number 079, you know, da, da, da, you know, explaining. And I got in. Uh-huh. And I mistake one of the number. So I didn't, I just bring my head out like this, you know, like, I just bring my head outside of the box and tell him, no, it's this number instead of this number, you know. Hey, it's the right number, but I mistake them. I put them in the wrong order because I was in a hurry. And the bus driver is like, you're blocking the door. You're blocking the way. You know, what is this? You know, like get in or something, you know, like. <laughs> and it's just like one second, guys, like just one second. And I was like, oh, sorry, I'm not blocking the door. You know, I was just telling this person there's just this one word, you know. And he's like, somebody at the door. And there was one guy who was also then waiting to get in. And the guy was fine even. Well, the guy looked a bit miserable as well, but I'm used to some of those faces here, yeah. Anyway, him does not know how to work in the public service at all. He's very rude and racist, okay? You can call him racist or maybe he's just rude and miserable. I don't know. Or maybe it's both. But I could have been dragged from him with him. If, if this was before I started my healing journey, I was going to tell him, whoa, calm down. You know, why you like this? I've not done nothing that what is, you know. And then he was going to talk and I'm going to talk. But I was just smiling. I was like, oh, sorry. I'm just give him this person my number because he needs something from me and, and then you just came straight away the moment I started giving him the number and he was like well you should get off then and go in here eh? and he looked so miserable I was like oh my God God help this man so yeah some people they're just so miserable and when you learn to meditate and calm you just look at them and you feel like praying for them yeah <laughs> look at the sun the sun decided to come out now from nowhere beautiful. So yeah, if you see people who are just miserable and going crazy and you have to interact with them, either it's at work or just something, just leave them, please. Leave them, they need healing. They're going through something or they just hate their job or just, you know, you don't know going through and why they're doing you know? So just don't follow them, please. Don't allow them to change your mood and make you mystery you know maintain your mood so yes guys that's the reason for this video I'm gonna say it in Wolof quickly for some people who might not know what I'm saying so lu may wax mooy <laughs> su fekkee ne yow nga xam nit ñoo xam ne si liggéeykaay bi wala jos nit ñoo xam ah dañ mel ni boss driver bi seetaan leen fañ si but waaw seetaan leen ndax boos driver bi man maa dugg si boosam bi bala ma caa dugg fa fekkaat ku ma doon laaj namba suma benn client boo xam ne daf dee jënd si man minti ba lagéey bi sene jinjar minti bi xama sene jinjar xaw jinjar fa ko bugg léegi mu gis ma ne ma xaay sa minti bi ndax xam nga ko ma ne ko waa léegi ma ne ko xaaral ma jox suma namba nga kool ma su ko defee da ko jënd mu yónnee la ko rek waaja di ma jox na mbaam rek rek boos bi xagsi ma ne ko taxawal gaaw defal nangam bindal nangam bindal nangam boos bi commencé tëj bunti bugg a dem ma yëkkati suma loxo ni def nii bay laal buntu bi kay mu ubbi te gis na ne buntu bi laa doon wut si de te gis na ne maa ngi doon daw di ñëw si boos bi di wax ak góor gi daw waaw waaye fa soxat mu tëj buntu bi ma def ko nii ne ko ubbi mu ubbi ma dugg ba fekk maa ngi wax namba ba tey ma continuer di wax namba bi di génne xaalis ah namba bi nag far ma jaxase benn numéro bi waaw numéro bi dafa correct de waaye ma koo jaxase comme ni ma ko waxee daal ma leen a jaxase so ma ne ko déedéet du numéro nangam bi nangam nangam ngay def fekk maa ngi wax loolu fekk maa ngi dugg si bopp bi taxaw bay fay di génne xaalis bi pour fay. ba pare nag ma taxaw si buntu bi daal di yóndu góor gi wax ko loolu rek boo driver ba hey looy def nii la ndox ngay demal ngay ba yaa ngi bolok buntu bi di nit ñaa ngi bëgg a dugg fekk fa am ak góor ak tubaab gu taxaw si buntu bi moom it boo ko gisee rek xam ne ñu bañ nit ñuul wala ñu sonn ci àdduna ñooñ moom la mu nga ne suñu suñuural waa dama xool bëti what the hell fii nag tubaab yu bañ nit ku dëgg boo solee yëre la seen rab yi bañ mhm. waaw sol yére africain man bu ma xenoo sama ndugg mi nii sax tubaab yu bañ ni ko ñuy dëgg fa ñuy gën a mer tubaab yu baax yi ñoo dee xool di smile di ree yu noo naan oh that's nice waaye man ma leen a faale buñ meree bañ rab leen ñoo ko <laughs> soo léegi boo driver ma ne ko ah sorry bunt bi de nga ko doon tëj moo tax ma daw dugg waaye fa tombé man may wax kii suma namba fan nga ñëw moo tax te kii dafa am lu mu soxlaa suma namba sorry waaye nga dégg ko pare wala ngaa dugg wala nga xaar beneen boos nanga nanga te kat man gis naa yàgg naa fi te du may dawal moo tax di yëpp boos yi nga ciy dugg di def loolu wala lu raw loolu waaw seen tubaab seen bopp sax léegoo léegi ñu wees boos bi. proper waist time bi bi te boos dry xaru def noonu waaye lii weesu ma nu ma dawee di dugg rek maa ngi ci nangu rek mu buddi xolam mu gis ñaari nit ku ñuul yuy wax hii ak nu ma xàppee naan ko thank you brother nangam rek moo koy gutti ak suma african dress la waaw waaw waaye yow su dee ku ko dugut tubaab sax seetaan ko li tax ma bëgg a wax lii mooy su ngeen xamee koo xam ne fa naqari dara te yabaate te soxot just going crazy because am na ci lim dund wala xam nga lu ko naqari lu ko lu muy góotulu right now moo tax muy def noonu ni ko noonu du ko def seetaan ko su dee yaa bokk ak mu liggéey kaay seetaan ko su mel ni gaynde nga mel ni ku dof mel ni xamoo lu muy def comme ni ma def boot day xobite naan ko oh sorry soori kii lay jox ni nit ngi taxaw di xaar nangam ma ne ko ayam soone nit kii xaar mu jege dama koy nit kii xaar day moom his ok wéret his sim ok wéret xanaa yow yaa ngi ok di ko wan léegi yaa ngi ëppal de waaw fekk time boobu maa ngi xool suma weccet yi sax xaw ma exact weccet moo ko war a jox mu jege dama ko jox xaalis bopp sax moo jox ko yeneen weccet yëpp rek ne ko jël bi ko mënumaa teg suma time sax seet weccet yi waa ndig nu muy waxee di xultu man de ma di ko seetaan calm down mu jéegi moo ko waxee loolu sax si la ruus de noppi si la gestu góor gi gis góor gi ci mu ngi mel ni kuy waaj a dee ma ne <laughs> gi si mu ngi mel kuy waaj a <laughs> ma xool ba ti getta ne ma ne <laughs> góor gi si bi mu ngi waaj a dee ah doo sum dëkk bitim réew mi tire yenn tubaab yi xëy na mel ni kuy waaj a seetaan leen leen tubaab or ku ci mel ni kuy waaj a nga seetaan ko jàpp sa bopp jàpp sa bopp di ko seetaan nooy de yow soo ràngee defanteeg moom fa lay def loo fa lay def def xale sa mbub mu fetee si mbub yi may jaay la fa lay def <laughs> tubaab yaa ngi may xool kii nu mën a xeenoo leen naa toog di nataala ko xam nataala xaw soo noonu la xaw a ngelaw nag xaw ngelaw li fa bëri de xaw dégg ngeen ngelaw bi leen ma dagg vidéo bi ngelaw li fa bëri waaw maa ngi ñibbi léegi ma xegg si kër gi sax dégg ma ne xaaral ma defal leen blog bu ndaw bi woon leen suma solo bi marinière yi maa koy jaay waaw different color la si bugg rek nga contact ma marinière bi xam naa si yeneen ñaari kola yoo xam ne nii lañ ko ñëwee waaw ko xem ni man yaram fa lay xem su ma la ëppee tuuti it fa lay xem soo yee escalier yi laa doon wàcc noonu de seen soo <laughs> yee beneen yoon guys bye xendu leen jàmm xaw ma ban time lay post vidéo bi fi mu nekk nii juróomi waxtu bu jotutit mu jaaxal ma lii da juróomi waxtu jot na ba passé waaw war naa jot ba passé tuuti waaw loolu war naa jot soo ba tey na lekk guma maa ngi xoor naan naa café Touba café Touba it ma koy jaay bagages yi ñëw nii xam na sepp xam café Touba xaaral naa si def vidéo karité xam naa waaw yëpp fresh jógee Afrique waaw kontaan leen ma daal danaa def vidéo si bagage yi sax fan yi incha allah suba wala gannaaw suba ngeen gis ko xendu leen jàmm